mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay yaay wax ah, di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info ba tey ah, ñu ngi fii ci arène nationale fekk fi ki nga xamante ni moom mooy Pape Sarr gannaaw nag ba mu taxawalee combat ak ki nga xamante ni ah. moom mooy Boy Balde am na beneen grand combat bu garaaw bu mu a taxawal ay spécial ah yu mu war a taxawal dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu waxtaan ak moom Pape maa ngi lay nuyu. waaw Fatma Dia maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu équipe bu Kewel Info yépp di nuyu Fallou bu baax a baax a baax. di nuyu tamit njabootu Lobaat Fall yëpp ñoom Cheikh Fall mama Lobaat su ma ndijaay nekk ci xam nga génn ci réew mi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax di ko wax ni ñaan yi egsi na di nuyu suma frère ku mel ni Bayla ak Aliou Muslim Lobaat xam nga jibeer yi képp ku bokk ci xam nga Saareen production ak ñi nekk ci dibiteri bi nag ñoom Souley ñoom Moussa ñoom Serif saar ñoom Keccel ñoom it tamit ñoom ñëpp maa di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu équipe bu Sarène production yëpp di nuyu tey mooy suway frère muy Jimbo ak Alain ak Jogay ak waa Rent DKR ñoom it gis naa taxaw biñ ma taxaw bu baax a baax a baax di nuyu tey koo xamante ne tey bu lii lépp amee moom la muy Mbaye Diop borom 116 muy suma nit di taalibe Seexul Xadim muy liggéeykat muy jàmbaar muy ku ma bëgg kooku dañoo bokk ndey ak baay lii lépp bu amee rek moom la maa ngi gërëm Papis tamit di nuyu magam Ahmed Dieng directeur 1xBet moom it maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Jamil Nouroula di gërëm Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Masata di gërëm Baboy tamit xam nga maa ngi koy gërëm moom bu baax a baax a baax ak képp koo xamante ne rek mbër nga nga yeewu pikin maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax xam nga di gërëm Kanji waaw Kandji moom it moom it gërëm naa ko bu baax ñoom Katarina képp koo xamante ne tey xam nga jox nga ma sa accord ci affaire bi may def rek man Pape Sarr gërëm naa la bu baax. <laughs> am na solo Pape Sarr ba tey euh, procédure yi fan la toll ndax gis nañu nag wax dëgg yàlla yaa ngi taxawal ay komba mhm. ay combat moo tax nga bëgg combat espoir yi def espoir yow 10 combat tëgg boo yëpp. waaw xam nga man tey dama dëkk Pikine ñëpp gis nañu sama combat rent Dakar yëpp benn mbëru Pikine moo ci bëre muy Pokola bii tamit bu ma ñëwee fasee naa dugg si ñaari combat te benn mbër Pikine laa ciy dugg parce que bugg naa tey su ma duggee si stade bi firi benn mbër bugguma benn mbër sib soné ma voilà man noonu laay doxee comprendre nga moo tax ma jël ci Boy Balde boole koog dugaar bi nga xamante ne tey mu ngi si 17 combat 17 combat ñetti défaite la ci am te wëral naa ko adversaire ba sonn awma ko si laa ñëw gis booy Balde mu jël ko comme spécial ki nga xamante ne tamit mooy Henri booy Boy Dieng ñëpp xam nañ ni moor Kankang kese moo ko fi daan voilà moor Kankang moo ko daan moom laa booleeg raam daan boroom bolog yu bari <laughs> moom day jënd fukki bolok <laughs> waaw Ram daan siñoor waaw mbëru sowru faal moom laa ko moom laa booleel dugg naa Tëngéej dugg naa Yëmbal dugg naa écrit ñoom Albouri bi Grand Médine dugg naa Faas am naa fa mbër dugg naa Caaroy fépp laa dugg parcelle dugg naa fa parce suma benn booy moo fa nekk mooy njaago xaw ma lan njaago booy bi booy bu baax la wax dëgg yàlla jël amoon bokk na ci journée bi waaw Pape Sarr euh, nan ngay euh, gis nañ saison bi instant bi mi commencé neex hmm. ak combat yi nan ko gisee waaw combat yu neex la combat yu neex la wax dëgg yàlla surtout tey euh, Papa Sow waaw moom it tamit mu ngi tëgg ay affaire yu neex tamit ma koy félicité bu baax waaw waaw non Papa Sow rek laa xam man Papa Sow xaw ma waaw man xaw ma kii bi nu mu tudd waaw waaw xaw ma man Papa Sow laa xam xaw ma ñooñu quoi mais Papa Sow laa wax wax dëgg yàlla gisan gis nañ ko fii muy tamit koo xamante ne ku dara jàppale la ku dal la ku baax la wax dëgg yàlla am na benn mbër boo xamante ne waaw waa jàmbaar yi xam nga ñu ngi koy dox mais xam naa ne man waaw su ma ko bëggoon ku ko bëgg da ngay ñàkk mais bi mu tuddee turu Papa Sow dama ko bàyyeeg moom ne ko ne ko tëgg déglu na ko tëgg waaw muy Prince waaw maa ngi bëgg daal nit ñi jàppale ko daal waaw waaw waaw mais Pape Sarr ñu gis ne gannaaw ci loolu wax dëgg yàlla léegi Pape Sarr gis nañ ko léegi ci structure boppam la nekk muy Sarr mm. production moom la tal mais ñu bari dañuy ne Pape Sarr lan mooy problème léegi gis nañu léegi dafa limité mm. ci boppam la nekk mm. mbaru Pikine yi dañ daan xewle di gis Pape Sarr wax dëgg yàlla ñu gis tey Pape Sarr Gambie Eumeu Sène am na fa combat Ama Baldé sa rak sa mbër yooyu noonu mais gis ñu Pape Sarr Gambie mhm. lan moo xew sa combat bi nga nekk wala lan la lu xew noo ci suma combat bi laa nekk mooy tey munoo nekk di di taxawal say combat di dem ci ay face à face Gambie face à face gën a dangereux yëpp man ngay man man la ñuy gis ñu jiital ma man nag du ma nekk di taxawal yor xaalis di taxawal samay combat di liggéey di dem di xam nga di jël sama temps di dem ay Gambie bi ma ñëwee waxtaan naa seeg Ama Baldé man bi muy départ maa moom ñoo toog ma ne ko mbër booy mu naa ma ne ko man munu maa dem parce maa nekk di liggéey moom it mu comprendre ma avant loolu day ñëw sama gaale day ñëw sama néeg ma expliqué ko voilà xam nga te bu dul loolu sax man depuis bi ma génnee sama coow euh, euh, problème boobu ma doon xeexal kilifa diine yi yaa ngi may da est-ce que man laa delluwaat ci ginnaaw ci lu bari wala te boo buggee dégg dëgg tey ñoom ñëpp nag ñoo waroon téye seen loxo fekk ma si kaaf ñu ne ñoo la jëlal avocat bi waaw mbëru Pikine yi ah. waaw te soo xoolee tamit ñu si bëri jëluma leen dam leen dam leen dama leen sentirul sama bopp ci tribunal bi waaw loolu tamit bokk na si foofu laa ko teg pour lu leer laay wax su am na ñoo xamante ne lu tax tëggaluma leen ma yàgg sonn waaw ma yàgg sonn si ñoom dama dem leen gisul ci seen dama gisul seen teewaay ci tribunal bi benn yenn yi boo gisee tamit ma delluwaat ci ginnaaw loolu bokk na si ñaareel bi ñoom ñëpp laa wax ni képp koo xam ne rek mus naa sonn sa sa kaw waroon nga jàpp benn avocat gis samay waa kër kon man maa ngi ci biir wala nga gis sama yaay wala nga gis sama mbokk ñu ne Pape Sarr ñoo la fayal avocat bi. kon Pape Sarr moo tax nga limité léegi. ci loolu bokk na si loolu moo tax danga am problème. soutenir loolu bokkul non soutenir ñëw nañu. bi ñuy ñëwee Modou Lo ci boppam. moo ñoom ñoo nekk kër Farba Ngom ñu ne loolu baax na moom ci boppam moo génnee gémmiñam ne liñ ma def baax na ci moom baax na ci man parce que maa ngi xeexal kilifa diina yi ba yoon topp ma benn Ama Baldé moo ko fa tontu loolu moom jot jot naa ci loolu. non dama dafa am mais dafa am dama ne seen devoir ñoom ñëpp mooy Pape Sarr bii kat ku yàgg sonn si ñoom la yoon teg na ko loxo ci wàllu kilifa diina yi du yàmbaa du sàngara du dara ku si nekk da nga waroon téye sa avocat ne Pape Sarr ñoo la jëlal lii waaw boobaa kat dinaa xam ne kii kat. wax dëgg yàlla li ma doon sonn ci moom tey sama mbokk parce que samay mbokk yi dañ see teg seen bëpp ñoom ñoo si nekk ba sonn ci ñoom it du ma du ma kii de xas ama seen ku muy mënti bëreel moom laa faral ku muy mënti bëreel nag dégg nga te àdduna du neex ba ma xas ko wala ma wax ko wax lu ñaaw muy ñoom ñëpp nag du dëgg nii la affaire bi demee. ak li nga ñoom ni ñu sa waay bu amee lu la métti doo ñëw nga wax ak ñoom. nga dara. man ku ci ku le ku musaana dal seen kaw xaw ma ñoo tooñ wala yaa tooñ damay génn attaqué la du ma ci xool dara pour lan ma lay may woo may woote ku ci nekk ci ñoom am nga devoir boo xamante ne war na la ak Pape ñoom ñëpp samay rakk lañu mais mënuma am ay problème nekk foofu yaa ngi may dégg sa ku si nekk balaa ngay ñëw ci kaaf bi da nga waroon téye sa avocat ne Pape Sarr ñoo la jëlal kii. Euh, bu nekkee loolu du dëgg rek ñu xool wala lii may wax ni yenu maanaa du dëgg amul kenn koo xamante ne billaahi wallaahi tallaahi loo munti am kase bu mu boo munti am yéenee naa te man teguma leen bët man teguma leen bët de lépp lu ñu am dañ koo war a am parce que dañ koo ñafe te fekkewu ma lu dëgg bu ñuy dem di entraîner di diine du man maa leen di jàppale mais xam naa ne moom gé naa seen carrière ñoom ñëpp loo xamante ne laa wax nii risque yi may jël kenn du ko jël su làmb su ñu amee bés du ma lekk du ma naan du dëgg su ma amee ay ndogu nag dinañu ñëw dama ne la loolu bokk na li gën a tax ma dellu ginnaaw parce que nit caabi mënu koo féetee ginnaaw muy ngay ñëpp xam ne ni man ni may mel ci Pikine ku si nekk mais mu xoolal loolu Mbaye Diop bii may tudd nii ak ku ñuy wax Tulaay Saale waa wadd wadd yi ku nekk benn avocat ak benn mbàkke mbàkke ak suñu waa kër loolu moo tax mu nekk six avocats yoo xamante ne du kenn kuy takk ngeem ku ma ko defal loolu ñaaw loolu dafa ñaaw. ñu gis ni nan dundee face à face ak Ama Baldé bien vrai que ni ñëwoo mais nan ko gisee Pape Sarr est ce que tey mi ngi doon wax ma ñëwoon lii fi am du fa am wala nan nga gisee loolu. non man seetaanu ma si dara. seetaanoo tàppewu ma tey ci suba laa seetaan ma dëgg euh, benn mbër bu xees benn waaju xees buy topp Modou di wax waxu Pokola yaa ngi may dégg gis que di si wax affaire pomp ak gaz affaire yooyu dégg naa ko quoi yaa ngi may dégg ba tudd turu Pokola yaa ngi may dégg di ko tudd parce que man su may wax damay wax nit ka jikkoom. du dëgg Pokola loolu du jikkoom man seetaanu ma benn face à face parce que bu période yooyu di fa am maa ngi fii CNG di taxawal sama di lijjanti samay combat di xool nu ma amee date di dawal samay mbër ci loolu laa nekkoon. kon noo déggee kon médical bi ñu naan Ama parewul. non Ama dama ne la Ama laa la wax. bu doon yor beeka sax na ñëw bëre. bu doon beeka ñaari beeka ñu tabax ñaari tànk yi na ñëw bëre ak loo Lo man loolu laay wax. non dama ko xam dama xam ki yor. voilà non loolu loolu loolu ñoom la parce que xëy na ñooñu xëy na ko koy wax tamit xëy na day fanaanook ama lu dëgg man mi ama bi may gis gu guddeeg bëccëg xam naa ne kii nii pare na pour përeg Modou parce que xam naa ne ama ama du tëri du lu dëgg wax ji bëri na parce que ku si nekk war ngaa libérer sa bopp ku nekk xool leneen mais tey nag wax dëgg yàlla di def ay di pronostiqué ñëpp ne état Modou Lo moo gën foofu état ama gars yi pronostiqué naan ama Modou moo gën a pare ama waaw loolu tamit mun na nekk mun naa nangu garaawul ñoom nañu wax rek man loolu laa bëgg ñu jël lépp jox ko Modou favori beeg lépp pare beeg lépp nañ ko ko jox dama ne la Ama Baldé yow laay wax boo yor ñaar bu ñuy damm sa ñaari tànk sax ñëwal bëri waaw loolu laay wax. dafa war na ñëw pour libérer nit ñi moom libérer boppam parce que billaay wallaay tallaay yërëmul boppam mais man dama ko yërëm man man Pape Sarr man dama ko yërëm parce que Ama Baldé premier combat am quatre combat la ci benn année daa daan Oussou Ndiaye kenn mënu koo daan mu daan ko daan kati junior daan Baye Peul daan bébé Saloum ñu ñëwaat ci beneen année bi mu bëre ñetti combat si benn année Ama Baldé lii mu ngi koy doo ko dal ci làmb du dëgg kon moo leen gën a bëgg bëri fuuf voilà médi médical man da yëguma ko man yëguma ko comprendre nga te bu nekkee da koy dugal bu mu ko dugal na ñëw bëri man non non man bokkuma ci estafam bokkuma ci estafu Ama Baldé man magam rek laa di ko jàppale man bokkuma ci estafu Ama Baldé moo tax soo ma tuddee ba dooy wax Ama Baldé ba tudd ma si dégg nga <laughs> waaw man mun naa dëbbal sama bopp sama nokkos. Euh, nan nga gisee tamit tafaatin ak Eumeu Sène. waaw gis naa leen ñoom ñëpp ñu ngi ci état ni ñaanal suma frère muy Eumeu Sène yàlla may ko ndam. waaw maa ngi ñaan maa ngi koy ñaanal yàlla may ko loolu rek laa ci mun a wax mënu amuma benn kàddu bu may teg Tapha Tine. waaw amuma benn kàddu boo xamante ne rek bu ñagas bu ma war a teg Tapha Tine. mooy loolu tey Pikine yëpp nañu génn jàppale Eumeu Sène yàlla may ko ndam. noo mhm. gisee Luc Nicolaï ak Alburax nan nga gisee. waa nice kontaan naa di wax Alburax fi nga teg sa tànk foofu la waaw kenn gënu leen a xam làmb kenn gënu leen maîtriser làmb a part doon kiin yéen fi ne. Uh-huh. waaw di leen di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax parce que tey bàyyi xamee wu xamante wuñu ci làmb ci dibiteri tafanaar la ñu xamante man daal maa ngi seen lu ñu nekk maa ngi ci. Uh-huh. waaw di leen ñaanal nag yàlla li ñu def nii yàlla nañu tëj national ba bay jaay ay suus. waaw dafa am loo bay jaayee nag. suus dafa am loo ma waxoon ci mm. combat Ama Baldé Modou Lô. naan Ama buy jël buy jël ñaari beeke sax na bëre. Mm. ne ba tey noonu nga gis le 5 mm. novembre. waaw loolu laa waxoon ba ma waxee ni. 2024 2025 la ñuy bëre xam naa ne 2024 jege si na de. Ah. li si des bëriwul ah loo gisaat comme lan. dafa am loo waxoon dama dama la buy bëreeg buy bëreeg Modou ah. yor beeke sax Ama mën. waaw Ama mën. ba tey li nga waxoon loolu lay wax. jugoo ci nu ma siy jógee. Ah, ñi naan kon ñooñu seen wax la ñuy wax rek. mais man xaw ma xaw ma man xaw ma ci dara xaw ma ci ay affaire kayit dara. xaw ma ci affaire Ama Baldé këyita parce que bokkuma ci estafam loolu wàllu estafam la mais dama ne man bu doon sama sago bu fekkee ñuy tabax ay tànku ama na ñëw bëre libéré nit ñi mu jeex. amoon mbégte contentement <laughs> pour yéen doon suivre sur Kewel Info Pape Sarr kon nee naa leen moom Pape demul Gambie Pape nee na instant bi ay làmbam la tal <laughs> mais daal ak lu mën di xew ñu ngi koy remercier waat bu baax a baax mbokk internautes yi kon ni ma leen ko wax làmb ji mm. na presque di ci des bareetul mais en tout cas production ñu ngi koy ñaanal yàlla na mm. combat yi taxaw ñu ñëpp ñu liggéey ci ndax Pape Sarr nit ku baax la te moom yëfam suñu yëf la mm. di wax rek lan ngay tàggatoo waaw maa ngi nuyu Pikine yëpp di nuyu suñu père Bourkhane maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax. ñoo bokk di nuyu tey ménager yi ma fi fekk ndeysaan muy ménager bu baax soo ñëwee da lay yombalal sa lépp wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm bu baax a baax a baax mbay Diop bu 116 maa ngi koy gërëm di gërëm Papis Papis Dieng Ahmed Dieng directeur général bu wan XBET maa ngi leen di gërëm bu baax a baax gis naa ni ngeen Papis gis naa ni nga ma taxawoo gis naa ni nga ma jàppalee Mbaye Diop Jamil Nuuru laa moom it suma sponsor la Jamil maa ngi lay gërëm bu baax a baax maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Jamil borom nuuru laa maa ngi koy gërëm bu baax Cheikh Lobat Fall ak képp koo xamante ne tey taxawu nga ma rek maa ngi lay gërëm bu baax Ousmane Cissé aussi aussi tamit maa ngi koy gërëm bu baax moom mu ngi ba Atlanta moom it jàpp na si moom loxoom ñëw na bu yàgg xam nga nee na soxlawul ma koy takkal baas soxlawul ma mu koy ma koy defal dara billaahi wallaahi watallaahi lépp lu ma defar ci avant mooy gilet yi mooy blouson yi mbëri yeeg muy lépp avance su mbëri yeeg lépp dugal na ci loxoom mais tey tey bu lii lépp amee Mbaye Diop la Birane Ndour moom mention spéciale Birane maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax drapeau bi nag spécial bi ah drapeau wu euh, spécial bi xaali mbay la xaali mbay dogo bu waali sek waaw waaw waaw bu sidaati moom laa tuddee drapo bi mooy diggante Boy Dieng Boy Dieng ak euh, Ramdan Signor ñoom ñoo koy bëre te jour boobu dam see bëgg décorer baabooy waaw utal ko jasneer bu baax utal ko ah. table boo xam ne mooy deuxième combat am ak Gris Bordeaux pour ñu xam ni tey baabooy tey du suma noon suma frère la du sama mag de maa ngi dégg ci benn interview ah. naan Pape Sarr sama rakk nan la ma magee mu judd soixante onze ma judd soixante onze ah, waaw eh magoo ma de nan la ma magee waaw moom mu ngi judd 111 maa ngi mu naan ma euh, Pape Sarr sama rakk def na lu rafet euh. magoo ma <laughs> nga non baaw est-ce que maa dañ koy seeti non ah. billaahi wallaahi tallaahi damaa bëgg nag mu génnee Pikine yëpp ñëw gunge ko uh-huh. xam ne ni Pape Sarr ak Baboy gis nga depuis bi mu ñëwee sama problème ak wahabis yi oh. mu ñëw tribunal boobu lépp lu ma ko jàppaloon la dañ parce que dafa moo njëkk sama kër moo njëkk tribunal kon tey soo lii amee war naa ko décorer ci bés boobu voilà war naa ko décorer ci bés boobu tamit maa ngi ñaanal tamit suñu papa pap Diop xam nga yàlla defal ko jàmm bàyyil ñu ko fii te ñun ñëpp mooy suñu kilifa képp koo xamante ne tey man nga nga nekk fii Pikine man Pape saar maa ngi lay ñaanal di la tàllal loxo nga ñaanal ma comprendre nga di wax nag tamit Sénégal yëpp képp kuy soppe Pape saar maa ngi lay tàllal loxo bu baax a baax a baax a baax di gërëm Mbaye Diop di gërëm Papis Khadim jaañ ak yaayam maire Yacine Doucouré maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax Fatma ja dañ maa jàppale taxaw ma billaahi wal kitaabi ñii ñëpp dañ maa jàppale billaahi wallaahi parce xam nañu li may daj billaahi wal kitaabi man dama doon dama daj lu métti billaahi wal dama damaa daj lu méttee métti métti sama rakk yi nekk fii waaw maa ngi siy ñaanal ñoom ñëpp na képp ku ci am combat képp ku ci am combat muy waa kër Boy Niang Eumeu Sène Ama Baldé écuries yi nekk Pikine yëpp képp ku ci am combat yal na la yàlla may ndam yal na la yàlla may ndam képp ku ci bëre yal na la yàlla may ndam ñoom ñëpp sumay rakk lañu maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. gàlle yaa